mbokk yi ba tey ñuy wéy ak yéen ñuy bàyyee xel site bii di 28 pro tey nag ñoo ngi fii toog ak Serigne Fallou Gueye Baye Fall Serigne Fallou ñoo ngi lay nuyu. ah ñu ngi leen di fay Serigne Khadim Diaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wàq te di ñaanal sunu borom defal nu jàmm ah, ñu bëgg a an baat yu ñu wax rek ci màggal gi te di ko jaare ci sunu turu kilifa Serigne Mouhamadou Ndiaye ngi jaan mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Ibrahima Fall ji. di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi loolu te wéral ko bis bi nag day bis boo xam ne bisu maam Cheikh Ibrahima Fall la ndax mooy bis bi nga xam ne ci la am ngërëm ci digganteem ak sangam bu baax ba Cheikhul Khadim di fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm ca Daaru Salaam di bisub talaata bis boobu nag sëriñ Basiir Fall alxuraan yàlla na yàlla fayal na ko moo ko gëstu ba jot ko jot ko ci magam ju baax ja Cheikh Mamadou Falilou Fall bis bi yàlla dogal mu jox ko ci baat ngir mu di ko màggal ñu daan ko màggal nag fa Tiwaawoon bi ñu demee nag ba nga xam ne Alaaji Baara toog na moom Sëriñ Fallilu moo wax ni yeew kat bu màggee ñibbi géej te ku fóotal mbëtt roccel bar bañ koy wax diggante Sëriñ Touba ak Cheikh Rafa la tax gannaaw Cheikh Ibra nag dañuy màggale Sëriñ Touba fi Touba Cheikh Ibra nañ koy màggal fii fi Touba ca këram gi ñuy wax Jannatul Mahwa bëgg naa ngeen def ko te danaa ko fekke sëriñ bi keroog sëñ Alaaji Baara fii leenu fekk ci kër gi wax ni màggal gi fii la boobaak léegi nag ñu ngi ko fi màggal ba yàlla dogal sëriñ Basiru Fall alxuraan wuy ji boroomam taawam bu baax bi di sëriñ Gunda Fall yor màggal gi ak baayam bu baax bi di sëriñ Cheikh Cokke ànd koog njabootu waa kër sëñ Basiru Fall alxuraan gépp ànd koog taalibe yëpp bis bi nag day bisu ngërëm sëñ Xaadim bis bi day bisu ngërëm bis la boo xam ne bii lépp lu ci waay def rek sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra la ko defal te it dañ ko bisu baay ju baax dañ cey barkeelu dañ koy barkeeloo ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra nag day kenn ci sëriñ Touba di ko am ngërëm ci sëñ tuubaa ba koy sàkku ngërëm jaaree ko ci Cheikh Rafal te sëriñ bi dafa wax ni ngërëm moom lépp rek ah bala ngaa mën a am ngërëmal yàlla da nga koy jaaree ci ku yàlla gërëm boo jaaree ci ku yàlla gërëm da am ngërëmal yàlla looloo tax ñu jaaree ko ci maam Cheikh Ibrahima Fall di sàkk sunu borom yàlla na nañu ko yàlla fayal di ñaan Serigne Bassirou Fall alxuraan mii nga xam ne it moo taxawal màggal gi ba ñëpp mën cee jëriñu yàlla na ko sunu borom dolli ay ngëneel ak i xéewal ca barsàq ci barkeb Seydina Muhammad Rasulullah ak ku fa fekk ak ku ko fa fekk kon sëñ Xaadim xanaa mën nañoo taxawlu foofu yem foofu ba beneen yoon jërë ngeen jëf yéen waa 28 TV ñu ngi leen di ñaanal sunu borom yëkkati seen daraja yëkkati seen maqaama ba li ngeen di liggéeyal Serigne Touba muy bokk ci liggéeyi Serigne Touba nangu ñu ngi leen di teewlu bu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf salaatu wa salaam ala rasulullah bi li ko waral du lu dul maanaam nit ku doon sàkk ngërëmal yàlla ak ku doon joxe ngërëmal yàlla ñoo seqoon bis bi seexul xaddim dafa ñëw wax ne lil mustapha nawaytumaa yu jaddidu sunnatuhu xarra wa inni ahmadu man maa yeesal yoonu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam saahiran wa baatinaa loolee nag Cheikh Ibra Fall doon ko topp bi ñu koy toppee tamit jaar na ci ñu bari euh, xista yi gudd na te amaana xëy na temps bi mën nañu ko bañ a may waaye fu mu jaar rek yàlla la fa doon wut su gisul yàlla day jàll demaat feneen bi mu dikkee ci sëriñ Touba li lay firndeel ne fa mu jógee yàlla la fa doon wër mooy da ko ne tànk bi yàlla laa doon topp ba mu sofe yow soo ko génnee ma dem ndax man itteewoo ma lu dul yàlla waaye nag booba dafa mel ne ku poñe sëriñ bi ngir sëriñ bi munta génne yàlla ci boppam ndax lépp sunu boroom dafa xas dëxañu ci seexul xaddim ba noppi sëriñ bi munta fexee fexe ba tontu Cheikh Ibra lu leer xanaa naan ko rek loolu ngay kooku ngay wax de bu ñu xamoon fu ne sëriñ Cheikh Ibra da koo delluwaat indiwaat laaj bi ba mu leer ci moom mu ne ko déggoo wax ji dama ne damaa topp tànk bi ba mu sofi yow kooku moom kon da koy génne ma dem rek génnewuloo ko mi ngi fi yow. sëriñ bi xam ne kii xam na li muy wut te xam na li mu bëgg mu xamal ko ne ko eh, yàlla jooju nag mi ngi fi man mu jaayanteeg Cheikh Ibrahima Fall ñu bëree bëri dañuy wax ne xaata bante naag Cheikh Ibrahima Fall taxawaay ban ànd egg suuf ñu dellu xaata bante waat ba jóg taxaw dellu xaata bante ba jógaat ba toogaat ci suuf mu doog koo jox nag ndigal jaayan mu jaayanteeg moom ngir jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala liggéeyal sëriñ Touba ñetti at bi mu liggéeyalee sëriñ Touba ñetti at nag ban toll ci euh, euh, fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm ci la sëriñ Touba gërëm Cheikh Ibrahima Fall dañuy wax ne weeru gàmm woowee sëriñ Touba gërëme woon Cheikh Ibrahima Fall benn fanub dimanche la woon benn fanub dimanche boo ko xoolee fukki fan yi ak juróom-ñaar talaata lay tombeel talaata boobee ci la Cheikh Ibrahima Fall amee woon ngërëmal sëriñ Touba. loolu moo wa moo sabab guddi gii kon guddi gii ngërëmal sëriñ ngërëmal Cheikh Ibra Fall la màggal di ci barkeelu muy lu am solo nag ndax e, ba Cheikh Ibra ñëwagul kenn amagul woon ngërëm bi mu ñëwee rek la ngërëm su dul woon Cheikh Ibra kenn dutul am ngërëm kon e, ñun war nañ koo mën a màggal ci lépp lu mën a doon sargal ko te itam xam ne bu woon Cheikh Rahima Fall dara du jag ndax Cheikh Ibrahima moo ñu dekkoteel Serigne Touba ban mën a jariñ ci moom. waaw jërëjëf comme ni mu ko waxee kon bis bii di bis bu am solo ci taarixu Baye Fall mu mel ne mooy bis bi nga xam ne ci la Cheikh Ibrahima Fall jote woon gërëm ci Serigne Touba comme ni mu ñu ko digtale kon Cheikh Ibrahima topp gi nga xam ne toppoon na ko Serigne Touba di liggéey bu am solo boobu nga xam ne moo law ci mbooleem kuy taalibe ba jamono ji muy toll. bis bii di bis bi nga xam ne moom la ñu màggal ngërëm li mu jotoon ci Serigne Touba kon ana ban ban jàngat la ci taalibe bi war am ci topp gi nga xam ne Serigne Cheikh Ibra toppoon na ko Serigne Touba ana lan ngay digal taalibe yi ci toppin gi ñu war a topp seeni Serigne. liñ ci war a roy du dara lu dul dañuy jàngat la Seexul Xaddim waxoon daf ne woon al muriduuna xismayni xisnul awal asmaloo as aslimoo li wajhillaahi tabaaraka wa taala nee na murid yi ñaari xaaj lan xaaj bu njëkk bi dafa jébbalu rek ngir jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala yàlla rek lay wut wax wax xismu saani xaajub ñaareel bi nag aslamoo li ru'yatil yumni wal ni beneen xaaj bi moom xéewali sëriñ bi ak barkeb sëriñ bi ak dalak sëriñ maanaam tawfeexu sëriñ bi daal saahiratan loolu rek moo leen booleeg sëriñ bi sëriñ bi nag dafa wax ne ku ñëw ci man ngir yàlla ak yonen ba ma jox la yooyu yii ma maanaam ku ñëw ci man ngir yàlla ak yonent ba dinaa la yóbbu booleel ak sa borom waaye ku ñëw ci man ngir saaxir ak koom si ma jox la yooyu nag sama baatin del si sëñ Moussa Ka yaakaar naa Cheikh Ibra Fall nag bi mu dikkee bi sëriñ bi séddalee taalibe ñaari xaaj kenn ki di sàkkukatub adduna képp yam ca kenn ki di sàkkukatub moom daa falang sa liy sàkkateefu àdduna bi daal di jublu ci li nga xam ne mooy sàkku mbirum alaaxira looloo ko boole woon ak sëriñ tubaa mu sàkku ci sëriñ Tuubaa moomu mbirum allaaxira ak mbirum yàlla ba am ko ni mu ko amee ndax sëriñ bi bi muy bi muy bi muy jox Seex Ibra laa ilaaha illallaah la ko jox waaye mbóot ma sekkereb laa ilaaha illallaah la ko jox loolee tax sëriñ bi dem ba gërëm ko ngir def na ci moom yàlla ba mu fees dell mu nangu woon ndigal bàyyi ay tere bëgg sëriñ Tuubaa bëgg goo xam ne si amul bëgg gu mel ci kaw suuf mu liggéeyal sëriñ Touba liggéey boo xam ne si daray ngistal nekku ca daray caaxaan nekku ca daray eh, ña ñàkk war ma nekku ca kon su fekkee ne dem nañ ba jëmmi jamono ñun ñu doon ay taalibe sëriñ Touba war jariñu ci suñuy sëriñ war noo jéem a roy Cheikh Ibrahima Fall ci bëgg sa sëriñ waaye war nañoo roy sëriñ Cheikh Ibrahima Fall ci bëgg yàlla ci sa sëriñ war nañoo roy Cheikh Ibrahima Fall ci dëggu war na noo roy Cheikh Ibrahima Fall ci nangoo muñ ndax laxas sa ndigg di gor di di daane ay garab ñu koy xam ngay root ay paani ndox di sotti ñu koy naan ngay màjjali ay booli di teg ñuy lekk suñ la yónnee nga daw soo soo dikkee sukk ci suuf ne groupe luñ la laaj nga joxe loolu ku amul ngor mënoo ko ku amatul muñ mënoo ko ku dëggut mënoo ko ku bëggul yàlla mënoo loolu kon nit ki balaa mën a jariñu ci ab sëriñam faw mu dellu ci jukkay Cheikh Ibrahima Faale sama sang bu tedd ba Cheikh Mamadou Fadal Wilane day wax ne Cheikh Ibra Fall képp ba àdduna sosoog léegi moo fi mas a bind bind moo xam ne sii maanaam safara mënu koo lakk ndox mënu koo tooyal te saa soo xoolee gis teg ci sa bët ñu ne ko mbind mi mooy lan mu ne foo fekk ab sëriñ toog ca kaw taalibe yépp nangoo toog ci suuf na nga xam ne loolu Cheikh Rafa la ko jàngale woon mbindum Cheikh saa soo fekkee ab sëriñ euh, toog ab taalibe gëdd poosam jox ko lam yoroon as kës néew ànd ak ak muñam dem wuti leneen te loola neex lool ci xolam na nga xam ne mbindum Cheikh Rafal feeñ na keroog ndax loolu Cheikh Rafal la ko fi daan def nee na saa soo gisee ku gëm sëriñam ba sëriñam gënal ko ndeyam gënal ko baayam ngir jëm yàlla na nga xam ne mbindum Cheikh Rafal bisu keroog gis nga ko mu ne Cheikh Rafal du mbind mu ñuy gis nii comme ni ñuy gisee mbind min bind ci kayit waaye Cheikh ci xel lañ koy gisee daal ne jataayub taalibe sëriñakub taalibe boo dem rek seex rafaala nga fa teew xaw ma nag yow am nga bët yoo ko gisee wala amoo bët yoo ko gisee kon loola mooy wan ne euh, ndaw li su bëggee am lenn ci la Cheikh Ibrahima Fall amoon muy ngërëmal yàlla ak lu demee ne yu mel noonu faw mu bëggub sëriñam faw mu attan koo liggéeyal waaye ngir jëm yàlla faw mu bëgg yàlla te sàkk ko ci euh, borom ko euh, sàkk ko ci sëriñam en même temps tamit mu amuk muñ amuk dogu loolu rek mooy tax maanaam euh, la Cheikh Ibra amoon ci sëriñ Touba ñu mën koo am ci suñu sëriñ ndéem sëriñ ba ndéem sëriñ ba moom itam topp na sëriñ tuubaa ba mu jox ko lay tax a doonub sëriñ ndax taalibe bu matub taalibe bu matub taalibe te bëggub sëriñam su dajeeg sëriñ bu matub sëriñ te te bëgg a jariñub taalibam njariñ dana am waaye lu taalibe bi jàmbaare jàmbaare jàmbaare jàmbaare jàmbaare ca sëriñ ba mu matul sëriñ xamul lan lay leen def ci taalibe tamit pour mu jariñu da koy da koy xaw a jafe su fekkee ne sëriñ bi yor na yàlla piir am na yërmande ci taalibe bi bëgg na koo jox waaye taalibe bi xamul nu mu koy sàkkoo ba tey looloo taxoon Cheikh Ibra Fall ne buñ demee ba jamono mbir mi togg gumba gaana lay doon gaana gi dana gis li mu war a jàpp waaye loxo yi day am ngànt ba du ko mën a jàpp gumba gi moom du gis li muy jàpp loxo yi dana mën a jàpp waaye dadul gis li muy jàpp loolu moo moo dox ci diggante sëriñ bi ak taalibe bi sëñ bay Jaxate daf koo leeral dafa wax ne gawar bu fasam të lu muy laaje fas xanaa dof ne kon day defar aw fasam ku yor wenn mol mol mokk far mun naa jox ma téeméeri mol luy mbiram ku boppam la jël kay mu réeréy mbiram bu dee bëgg mbooloo yorul am xelam ku yor am xelam dafay jàll wéy ba noppi fexee jàll ay waa këram balaa kenn tal kenn paasam ba mat ku paasam ba matul kay du yóbboo du dem dégg nga loola kon sëriñ Touba ak Cheikh Ibrahima lii lan fi doon liggéey mooy sëriñ Touba daal di kun mat sëkk li mu doon ñeewante jaam ñi ci lëndëm gi nu ne mu fas yéene cee jóge tàbbal leen ci leer tàqali leen ak seytaane marale leen ak seen borom looloo doon noonu rolu sëriñ Touba Cheikh dikk fas yéene takk ndiggam wane nan la ñuy def ba mën a jariñu ci seex seexul xaddim lii rek moo boole woon sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall. njaboot gi tam. lan déglu njaboot gi tam. li seen maam Cheikh li seen maam Cheikh Ibrahima defoon. li seen maam Cheikh Ibrahima Fall defoon. nangu te nangu dogalu yàlla. te nangu dogalu yàlla ba. lu topp ci bu baax a baax. lu topp ci bu baax baax Fall. ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy dagaan sunu borom. Serigne Bara ne li nga ko dagaan sunu borom subhaanahu wa taala. te am nañ ci ci yaakaar. daaw bi ñu nee yëpp yëpp nañ ci loxol sëriñ bi nee daaw bi ne lépp lépp nañ ci loxol sëriñ bi bëgg nañ ci lool sëriñ bi ne mi ko déggee bëgg na ci lool Fall yàlla na yàgg yàlla na yàgg ci sa loxo kon sëriñ Gounda sëriñ bi nee na yàlla yàgg ci sa loxo lool taalibe yokku lool taalibe yokku lool boole ci barkeel boole nag di fajal doomu aadama yi seen aajo di fajal doomu aadama yi seen aajo yëpp yàlla ko yàlla def yàlla ko yàlla def ci taalibe sëriñ bi ci taalibe sëriñ bi ak yeneen yeneen yeneen jullit yàlla yëpp ak mboolem jullit yàlla yi bismillah kon mooy kàddu yi sëriñ Baara Fall waaye sëriñ Baara sëriñ Gundoo nee na kàddu yooyu de lim ci teg mooy sant ak ngërëm rek la ci dolli nee na mi sant te dina ñaanal Fall sa borom wéral la bu baax a baax guddal soo fan nag ndax nee na loolu dama mel ne njariñ la moom lu jëm si ci ñoom nee na lu wér la ci àdduna bi sëriñ Gundoo nee mi ngi sant bu baax. ndax nii rek nga ko àndoon sëriñ bi nag sëriñ bi lépp lu mosoon a yëngu lu mosoon nekk rek sëriñ baara dikk na ànd ak sëriñ bi ca loolee ba yàlla dogal sëriñ bi bàyyi ko fi bi mu fi jógee it sëriñ baara daa fedd laxasaay gi ba mu gën a dëgër diggante nag sëriñ bi feddalawaat kóllëre gi doxe ci doxin woo xam ni faw xona doxin daan doxe bu jëkk ci jéegu jëkk ya kon sëriñ baara loolu moo lay xamal ni dëgg déet moo la booloon ak sëriñ bi kon loolu mooy sa tànk tey yii nag ba tey jii yow nag sëriñ bi nee na day seera coo ne jëmm ju baax nga moom suñ Gunda Fall nee suñ baara ku bëgg lu baax nga moom la nga doxe di ko waxe bëggub taalibe lool te di ko xenc walaa ne noonu loolu yàlla dogal ci sa jëmm ji kon sëriñ Gunda Fall ne mi ngi lay bu baax di ñaanal mboolem njaboot gépp di ñaanal mboolem taalibe yëpp nga ne daal suñu ko seet na bu baax a baax ci yàlla sa fan gudd faal te wér te nga wér lool noonu nga ne kilifa gu màgg suñ bésu alxuraan suñu xool yàgg cee sedd lool waaye loolee nag lépp tey ji faal daa yokk jërëjëf faal gis nañ jëf ji gis nañ yéene ji gis nañ xalaat yi gis nañ ñaane gépp faal nu ngi ñaan nga yàgg fi te ak njaboot gépp ci dara ji sëñ bi jërë ngeen jëf tubaarkalla.